حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات bokk jullit yi bokki taalib yi ngi leen di nuyu di yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam li tariqatil muridiya ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko ak naa li nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam am ko ci liggéey Sëriñ suñu borom may ko kàttan ak ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee mu yónni ma ay kàddu yu nuyoo ay kàddu kàddu yu cant ak i ngërëm sëriñ bi wax ne day jaale ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko te nekkoon ci seen liggéey bi doon ko liggéeyal moom di liggéey Sëriñ ci ndigalam ba yàlla def seen bakkan rot fa nee loolu nañ xam ne lam leen waxoon rek dañuy xam ne ñooñu eh, shahid lañ shahid nag dara ëpp ko daraja ndax wa man yaxruj min baytihi muhaajir ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhu lmawtu faqad waqa ajruhu kon ñoom lañ doonul am nañ ko te ku ne xam na ne kat di liggéeyal Serigne Touba ba sa bakkan des fa loolu dara lu ko ëpp yaakaar amut kon nag sëriñ bi nee na na seen ñi nga xam ne ñooy seeni bokk na mu xel dal ci ñoom ngir xam ne wóor na ko ne ci liggéey sëriñ Tuubaa lañ doon nekk ba seen bakkan des fa kon nañ xam ne wóor na na ko na leen wóor na sëriñ jëf kon nag ñi ñaan eh, ku ci ne bu fekkee bàyyi na fi jëw yàlla na suñ borom aaral leen jëwal ko te xam ne fañ nekk moom eh, moo leen dàqal fii ñu nekk wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yurzaquun farixina bima aatahum allahu min fadlihi kon loolu mooy li kàddu yi nga xam ne waxoon ne naa ko yëkkati jëme ko ci seen i bokk jëme ko ci yéen itam ndax ci yéen lañ nekkoon ànd ak yéen waare ba des mustaanisiina bi askaarin waayaati حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات خوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع القرورات